asalaamaaleykum euh, cher internautes euh, ñu ngi leen di nuyu di leen dalal tey euh, ñu ngi dalal ministre Abdou Ndéné Sall nekkoon na fi ancien ministre secrétaire d'État au réseau ferroviaire actuellement moom mooy DG SENTER monsieur le ministre ñu ngi leen nuyu. maa ngi leen di fay Sénégal di leen quand même vraiment di leen sant bu baax parce que dañuy wax la communication ça réduit les incertitudes ku la may nga mën a communiquer ak ñu bari ñu dégg la. ah rek dina dina baax dina wàññi quand même euh, euh, quand même incertitude yi am ci affaire yu bëri yoo xam ne dina yee nit ñi ci li ñu war a def parce que quand loolu yëpp liñ ci jublu mooy jàmm ci sax ci jàmm ci ñu mën a tabaxee Sénégal. ok au fait euh, pour avant ñuy dugg ci débat bi est-ce que mën nga ñëwaat tuuti euh, ci SENTER ñu fàttali ne yow yaay DG SENTER donc pour expliquer un peu aux Sénégalais. mooy société. national de patrimoine du terre xam nga Sénégal dafa leb xaalis mhm. bu mu lebee xaalis yokk ci moom ci boppam après pour defar terre dañuy wax le train express régional mhm. autorail bi nga xam ne dafa wër a relier ay région mhm. actuellement dina relier région de Dakar ak région de Thiès en attendant après mu relier yeneen d'autres yooyu pour pour yombal dem ak dikk bi entre vraiment Dakar la capital et les autres capitales régionales donc euh, bi mu bi mu bi defee loolu nag il faut que patrimoine boobu il faut mu am ku ko dénk. Mhm. léegi état bi moom moom patrimoine terre bi yëpp. Mhm. li ñu ci dépensé yëpp yëpp yëpp yëpp muy raay yi muy train yi mhm. ah muy système bi dafa am benn système moom lépp état Sénégal moo ko moom. Sénégal bu moomee loolu nag il faut mu dénk ko. pour état bi di ko di ko yore di ko exploité. day metti il faut ñu defar benn société. boo xam ne moom la koy moom la koy moom la koy dénk pour mu mu koy mu koy mu koy exploiter loolu moo tax SENTER juddu APIX li mu doon def rek mooy que ministère des infrastructures ah ministère des infrastructures des transporteurs et du désenclavement moom la moo waroon defar TER bi moo ko waroon defar maintenant mu jël APIX bras armé def ko maîtrise d'ouvrage délégué maître d'ouvrage bi ministère la APEX yi doon maître d'ouvrage délégué pour mu liggéey terre bi c'est-à-dire mu lancer appel d'offres yi mhm. jox koy entreprise entreprise yi di ko liggéey mhm. mu daal di koy surveiller mhm. bu ko yooyu bu ñu déposé seen décompte moom mu validé ko yónnee ko bailleur de fonds yi bailleur de fonds yi fay donc moom euh, ci terre bi moom moo yore quand même li ñuy wax euh, exécution c'est-à-dire pour day moom ak entreprise yi entreprise yu mag yi ñu jël pour ñu liggéey léegi bu liggéeyee ba pare day def transfert daf may transférer l' ensemble du patrimoine mhm. man nag man maay organiser pour xool nan nañ ko exploiter bu defee man ma jël ma jël benn contrat de gestion mhm. jox benn pàcc bi nga xam ni mooy trafic bi dem ak dikk bi train yi ñu ngi dem ak dikk yi jël ticket yi ñuy réparer terre bi ak ñun ñëpp ñooñu man ma jël euh, benn groupement SNCF nga xam ni am nañ expérience mhm. bu mag ma jël leen dans un contrat très court bu ko defee ñoom ñu commencé exploiter le temps ñu def transfert de compétence à, à, à au Sénégalais pour ñu jël ko en charge plutôt mu am une société nationale d' exploitation du terre bi nga xam ne moom mooy exploiter terre bi société boobu aussi day ñëw des étrangers ñi ñoom yor exploitation bi non on peut des étrangers mm une société SNCF bi nga xam ne dafa am expérience dañ koy jox un contrat de gestion donc damay externaliser mhm. exploitation bi daal ko koy jox mhm. mais dama man maa koy surveiller maa koy surveiller te exploitation boobu dañu ko wax ni que l' ensemble des personnels bi muy jël ay personnels sénégalais lañu moom tuuti rek dañuy jël ci administration bi ci ci kii bi mhm. ci dañuy wax gouvernance tuuti expatrié te expatrié yooyu dañ leen war a remplacer mhm. à un certain bout de temps pour lépp nekk loxo loxo Sénégal c'est-à-dire c'est pour ne pas prendre risque dès le début mhm. de l'exploitation parce que quand même euh, xam nañ ni transport ferroviaire dafa am benn secteur bi nga xam ni et eh, quand même gouvernement yi dañ ko abandonné woon. ok donc genre transfert compétence la genre transfert compétence pour que ñu mën ko jël en charge totalement. Mm-hmm. donc euh, terre bi c'est vrai que boobu léegi bëri na coow donc anoon annoncé nañ fi milliards ñi ngi naan 600 ñi ngi naan 800 am ñenn aussi ci opposition bi neen dépensé nañ plus de 1000 milliards donc euh, diggante bi boobu ba léegi euh, ñu ngi. annoncé euh, démarrage TER bi à maintes reprises en 2019 président Macky Sall euh, soo gisee inauguré na ko euh, après inauguration bi ñu bëri ñu ngi doon xaar démarrage bi boobu léegi ça tarde récemment aussi annoncé waat nañu démarrage bi en décembre donc exactement lan mooy TER bi kañ la nar a ñu ngi dawal pour que mise en exploitation commercial mhm. mooy que nit ñi di ci dugg di fay billet. Mhm. di mën a am soxla ci l' ensemble des quatorze gares man cee dem. donc kooku ñu ngi ko ñu ngi ko espérer le vingt quatre décembre. mais problème bi mooy vraiment il faut ñu revenir man loolu noonu ci explication yoo xam ni nit ñi mën nañ ko dégg. Mhm. ah parce que man mii lay wax ni quand même malgré que je suis j'ai été ministre délégué. nekk léegi nii euh, le premier directeur général de SENTER la société patrimoniale du TER. Mhm. mais vraiment performance perfor ci réalisation ferroviaire. vraiment je parle je suis une personne assermentée je parle def nañ ci perform c'est actuellement le le le décembre mhm. ñu commencé exploité dañuy def performance mondiale je par dans une télévision et si li ma lay wax ni wax naa ko France 24 wax naa ko dans toutes les télévisions mhm. kenn mënu ma ci démentir mhm. performance mondiale en termes de réalisation ferroviaire dinañ ko def ci fii comme l'ensemble des performance i président Moussa def ci ci plusieurs secteurs énergie euh, financement des entreprises euh, infrastructure ak performance mondiale la ñuy def mhm. en termes de réalisation ferroviaire parce que yenn saa yi nit ñi dañuy juum boo xamul la la cartographie du TER mhm. c'est-à-dire l'ensemble ñi yëpp nga xam ni daf ko TER bi da ko séq mhm. bi toujours de trente-six kilomètres cent huit kilomètres la trente-six fois trois parce que dañuy def ñett ñeenti dañuy dañuy dañuy def deux voies standard ak benn voie métrique ah léegi muy ñetti voies ñetti voies yi boo calculer trente six multiplié par trois muy cent huit kilomètres parce que bu ñuy calculer kilomètre de rail la ñu war a calculer cent huit kilomètres lañ def yaa à peu près fii ak Diamniadio yaa treize gares quatorzième gare bi mooy la gare de de de de de AIBD nga def mur mur mhm. parce que terre bi train électrique la mhm. ñoo jógee ci train diesel. Mhm. bi nga xam ne amul danger ñu def un train électrique. Mhm. avec un système très compliqué. Mhm. moo tax ñu def des un en béton de part et d'autre trente six kilomètres de mur de part et d'autre muy soixante douze kilomètres de mur. xam nga boo defee mur nit ñi dootuñu mun a ñëw ci emprise terre bi. donc il faut nga defa leen ay passerelles. ñu def à peu près une euh, cinquantaine de passerelles. Hmm, à chaque trois cent mètres am na passerelle. def aussi des ponts dix neuf ponts. def à peu près. E seize pont pont yu enjambé def ay ay ay ay pont rail yi nga xam ne dañu toog ci suufu bi def ci à peu près ay seize mhm. ah mhm. ba pare def un système vraiment d'assainissement complet gis nga gis nga actuellement mhm. gis nga ni banlieue bi actuellement on par d'inondation mais terre bi toujours bu doon taw xam nga fi mu jaar yëpp te des zones inondées dañ daan am problème inondation mais amuñu ko parce que on a réglé quand même problème d'inondation de la plateforme ferroviaire ta portefeuille drainer ko. Mhm. pour génne ko ci plateforme bi. vraiment c' est un travail de titan la ñuy def boo xam ni que sérieusement je vous dis en tant que expert ferroviaire. Mhm. c' est une très grande réussite. boo gisee ñuy wax deux ñu waxoon réception c' est pas une réception c' est une réception parce que teer boo koy def il faut nga def ko par pacc c' était une réception pàcc par pacc la pàcc bi bu baaxul rek. Mhm. doo war continuer ci yeneen pàcc. des réceptions des deux gares emblématiques mooy à gare de Dakar et gare ak la continuité ferroviaire train bi mën a jóge jam ñaajo ñëw ba euh, gare de Dakar mhm. te loolu def nañ ko parce que président dugg na fa mhm. ay ak ak ay partenaire am dugg na fa ak BAD ak bidd mhm. ak l'ensemble des partenaires mu jóge dugg train bi jógee Diamniadio ñëw ba fii donc pour la première fois ñu am un train électrique en continuité mu mën a daw Diamniadio ak Tuc sans aucune contrainte. ñaari gaar yooyu. maintenant je vous dis dans le monde. Mhm. même ay Côte d'Ivoire am nañu projet bi. ils ont pris 2012 2035 12 ans. Maroc am nañu projet ils ont pris 6 ans 7 ans. Mhm. Algérie ils ont le projet ils ont pris 6 ans 7 ans même en France. Mhm. un projet pareil ils prennent plus de temps. mais mais fii bi ñu ñëwee président dafay damay changer cadence. li nit ñi doon def. en en en en quatre ans man bëgg naa ko def ci benn at. te ba léegi yi nga xam ne song na ko di ko def réussir na ko donc c' ça donc terre bi aussi bu ñu paree c' est dans le même cadre que dañuy wax ni sur la construction ferroviaire réussir nañu en faisant quand même euh, une importante infrastructure en un temps record. ok bi ngeen joxe actuellement. donc date bi ñu joxe date bi ñu joxe xam nga construction ferroviaire. kenn mënul wax date bi nga joxee rek date boobu mooy tig parce que président dafa teg lu mu wax la sécurité la certification dafa wax dafa bëgg un TER de Dakar ñu aligné ko aux normes sécurité internationale moo tax ñu jël un cabinet de certification internationale boo xam ni c'est une c'est un cabinet assermenté bi nga xam ne moom mooy ñëw vérifier la certification de la sécurité des infrastructures fixes du matériel roulant et du système mhm. vérifier la performance opérationnelle du système dans son ensemble en termes de fiabilité, maintenabilité, disponibilité et sécurité. ñu def une marche à blanc de deux mois pour xool quelle est la performance de ki ñu jël SNCF bi ñu jël malgré que il est tout le monde sait qu'il est performant en France mais il faut ñu tester deux mois l'ensemble des procédures ah est-ce que il est performant mën na def affaire bi et tout ça ñu doog am autorisation de mise en exploitation commerciale mooy que terre bi mën na jël ay nit de manière sécuritaire ce cabinet là rek il fait une certification c'est un cabinet international uh-huh. c'est le Sénégal mënu imposé le lenn loo xam ne c'est pas sécuritaire mu signé ni c'est sécuritaire donc c'est un examen presque qu'on va faire okay. sur ça et on va on va on va on est en train de travailler avec lui depuis deux ans donc yu bari déjà certifié na ko uh-huh. et tout ça mais s'il n'y a pas de problème normalement le 24 décembre mën nañu daw. donc on parle aussi de la cherté des prix donc euh, qui varie selon certains entre et 1000 francs donc euh, est-ce que loolu selon vous yenn na maanaam xam nga euh, xam nga des fois toujours. ñi si ëpp banlieue ba li ñuy jógee bon te li si ëpp soo xoolee ay car rapide wala bus nañ doo jël 200 francs egg fi ñuy eh, ville wala fi ñu fi seen destination. non xam nga problème bi da nga koy comparer ak les prix qui s'appliquent actuellement. Mm-hmm. kenn mënut a kenn mënta jógee actuellement eh, Diamniadio ba fii ba dakaar fay moins de mille francs boo ma ko boo ma gisee rek ci benn système de transport wax ma ko ak loo mënti jël. am na na kii mooy Dakar dem di kii jógee fii di dem euh, fële euh, c' est moins cher je pense. ñaar dañuy fay. Euh, bon sérieusement francs. non non ça ne se passe pas comme ça. xam nga problème bi mooy Dakar Dem Dikk dañ ko ñëwoon ah dañ ko ñëwoon teg rek parce que solution de facilité la en attendant que terre bi dox. mais bu TER bi doxee loolu yëpp TER bi moo ko war def donc booy def prix un prix dafa am un indicateur social un indicateur économique ah et un indicateur de rationalité ñett ñett yëpp ngay boole parce que prix bi bu fekkoon dañuy def prix bi rek prix bi normalement teg rek dañuy def prix bi nga xam ne dinañu permettre ñu rembourser TER bi ah mais defuñu loolu dañuy def enquête enquête d'acceptabilité du prix enquête boobu dañ ko def ci ñi nga xam ne ñoo jël ñi nga xam ni am nañu chance su jël TER bi ñoo xam ni ñoom dinañ ko jël ñi nga xam ne actuellement ñi ngi jël yeneen moyen de transport di dem fi ñu war ñu def ko enquête sur toute la ligne le l' ensemble loolu ñuy wax étude étude étude à l' ensemble des gens yi ñu ni leen prix yi dañu bëgg def prix ñu bëgg def ñu def ñu def bi jël le prix moyen bi bi bi ñu defoon démarti président mu wàññi ko encore donc vraiment on n'a pas de problème sur les prix. mën nañu jàll fa am subvention état wala. am na ci am subvention état. ok donc pour amortir li ngeen dépenser si terre bi. non bi. terre bi boo xamul rationalité terre bi on ne cherche pas à amortir de terre. de terre li ko fi indi li ko indi mooy c'est autre chose li gën ñaan le coût du terre le coût de l'inaction boo ñu toogee defuñu dara pendant un certain temps loolu mooy financer terre bi. le coût de l'inaction pendant un certain temps financier du terre donc cette phrase phrase boobu rek continuer wax nañu que la rentabilité économique du terre bu ñu la waxee yaa ngi perte cent milliards ci xat-xataayu Dakar cent milliards ci congestion yi dem ak dikk bi kii yëpp xat-xataayu Dakar te xat-xataayu ko indi mooy kii bi ca xam nga Dakar transport pendulaire le matin gars yi dañuy ñëw le soir ñu wàcc parce que ñu bari banlieue bi lañ dëkk gis c'est une dorsale ñun la boo combiner le TER et le BRT di nga ci économiser lu bari ci perte loolu nga xam ne da nga ko doon perte ci xar-xari Dakar mhm. donc le TER vient en complément de l'autoroute à péage pour daal yombal dem dikk bi mhm. ba pare xaalis boobu ñu doon ci xar-xari mhm. ñu wàññi ci lu bari parce que xam nga fi mu ne nii euh, cisaillement yi ñu doon am ci tali yi président def na ay ponts yu bari xam ne ci autoroute bi léegi boo ci jaaree da romb amatul benn euh, ñaari oto yu kii dinañ ko def ci pont yu bari ñu ngi def kii boo demee Euh, boo demee euh, Kër Mbay Far dem caaro def tuuti def nañu ay pont yi nga xam ni amatul doo ñëw ci ay ay benn ay ay ay ay ay foo xam ni tali ñaari tali dañ fay daje nga fay yàgg cest à ki ñi ki nga xam ne moo am route principale bi day dem rek carrément donc yooyu yëpp pour wàññi li ñu doon perte ci externalité négative bu congestion Dakar pour fàttali ni Dakar yaa ngi am euh, boo ko un quart 4 millions de personnes ñuy dund Dakar xam nga dakaar ci superficie Sénégal lan la. 0,3 mhm. un quart de la population sénégalaise vit ah vit dans une superficie boo xam ne 0 virgule waxuma la 1 virgule sax 0 virgule pour cent de la population sénégalaise ñu ngi dund ci 0,3 pour cent de la superficie du Sénégal muy fi dakaar donc il faut que les externalités négatives ah. yi nga xam ni moo causé par la concentration excessive du trafic de la population et des activités soixante dix pour cent des activités ah ñi ngi dakaar boobu bëggee liggéey Dakar ngay ñëw donc moo tax la président mu diagnostiqué boo diagnostiqué dëkk bi mu ni léegi damay def une réforme bu bu structurelle bu bu dox ci affaire bi def de projets structurants mooy déjà pôle urbain mu def trois pôles urbains pôle urbain de Diamniadio pôle urbain de Dagu Xolba pôle urbain de Lac Rose boo defee ay pôle urbain nag il faut nga faciliter entre nga am une liaison entre l' ancienne capitale la la la capitale la vraie capitale et ces pôles urbains là nga xam ne da nga fay transférer activité pour transférer activité yi président moo jëkk jël exemple jël ministère technique yi nga xam ne dañu amoon fi yëpp mu yóbbu leen fa ah ñu def un parc industriel def université def euh, sale de sale de conférence à Abdou Diouf mhm. ah, yooyu yëpp bu ñu ko defee ñoo ñëpp il faut que nga faciliter dem dikk bi donc euh, TER bi day ñëw en complément de l'autoroute à péage mhm. pour dem donc loolu moom réglé nañ ko mhm. réglé nañ ko rapidement maintenant ay affaire prix bi prix prix bi ñuy wax ay le coût mhm. loolu moom dañ ci dañ ci cest à en fait yenn saa yi man des fois damay naan ñoo ko tey parce que munoo wax mënoo wax ni que l'opposition amuñu des ingénieurs mënoo wax ni que opposition bi amuñu des personnes yu xam Mm-hmm. mënoo ko wax loolu mënoo ko wax mais mais mais mais sérieusement mm-hmm. des fois quand j'entends des gens parler je me dis que les gens sont soit ils font ils sont dans dans l'amalgame dans la déformation dans le dans le mensonge même que la vraie réalité parce que boo lancer un appel d'offres dañuy lancer un appel d'offres international parce que bailleurs de fonds yi dañuy financer bailleurs de fonds yi bu ñu la financer da ngay ñaan suñu xaalis da ngay lancer un appel d'offres bu nga xam ni ça couvre le monde bëgg ñëw ñëw mm-hmm. bi ñu ko lancer il y a 66 entreprises ñëw et les meilleurs du monde onze pays différents entreprise yoo xam ne seen chiffre d'affaires annuel nekk na deux fois le le le le le budget du Sénégal. budget du Sénégal ñaata quatre mille milliards ñoo xam ne ay dix mille milliards huit mille milliards lañu ñu am chiffre d'affaires ñu ñëw participer ñu ñëw participer nga tànn ci ñi ko mën def nga jël ci ki ci gën a moins cher. Mhm. donc tu ne peux pas avoir un autre prix. parce que tu as fait un appel d'offres international. Mhm. prix bi moom rek la ñu mënoon a am. mënuñu am beneen prix. et après boo defee attribué attribué lot par loo lot 1 ñu attribué ko Eiffage euh, mhm. CSE ak Yapi lot 2 ñu attribué ko quand même euh, ñu attribué ko système bi ñu attribué ko mhm. INGIE ah ak Thales mhm. lu yëpp loolu yëpp ñu attribué ko gaar yi président ni woon gaar yi comme gaar tabax la rek nañ ko attribué nañ jéem a def un appel d'offre national boo xam ni étranger duñ ci bokk. pour ñu attribuer ko Sénégalais yi. loolu c'est un bon lot ñu attribuer ko c'est ñu appelé appliqué ko. si mhm. Sénégalais yi. donc vraiment appel d'offre la un appel d'offre on peut plus parler de prix parce que appel boo attrib boo boo boo subventionné. Mhm. bu nekk da ko attribuer ki gën a moins cher boo mhm. additionné attribution yooyu ñu ngi ci actuellement sept cent quatre-vingts millions. tout confondu ak loo xam ne dañ ko fàtte woon ñu duggalaat ko lépp c'est sept cent quatre-vingts millions sept cent quatre-vingts milliards waaw donc vraiment boo ba déggee keneen di wax et puis loolu c'est accessible boo yow mi ci sa bopp boo jëlee www.armp.sn e mhm. xool l'ensemble des attributions nga additionné ko di nga am prix bi donc vraiment des fois je ki dis que nit ñi yenn saa yi ils sont dans l'amalgame dans la déformation dans le truc mhm. un appel d'offres international mënoo ci am mënoo ciy def dara mënoo ci wax dara mënoo ci prix bi nga xam ne moom moom la ñu moom moom moom la ñu kii bailleurs de fonds yi appel d'offre boobu dañu la laaj dossier yëpp ne la jox ma dossier yi ma xool bu ñu xoolee bu baaxee ñu jox la rapport de non objection mais mënoo Sénégal mënut a BID nax waa BAD nax AFD ñooñu ñëpp mu nax leen def lu ko neex mënu nekk quoi parce que boo lancé avec encore ak les autorités des marchés ici ARMP DCMP mm-hmm. ñooñu ñëpp dañuy jël dossier bi étudier xool ba xam li nga def baax na ñun la baax na wala baaxul bu ne baaxul ñun la ñoom on arrête. ba nga def lu baax wala on reprend on reprend on reprend l'appel d'offres moo tax des fois sérieusement je me disais même que même vous war ngeen dem xool quand un problème se passe comme ça mhm. ngeen dem xool dem ARMP dem xool documentation bi et puis vous dites voilà la réalité au moins au moins ça informe la population parce que bu fekkee kii day wax kii day wax population bi dañuy réer ci wax yooyu dañuy wéer wéer ci wax loolu bu ngeen demee en tant que arbitre ngeen dem ARMP jël l'ensemble des marchés xool marché bi xool la ensemble des des avis de non objection BAD BID AFD xanaa ñun ñoo ñoo ñëpp BID qui est une nga xam ni la transparence dañ ko teg dañ ko gëm ñoom ah. bu benn entreprise parce que bu fekkee dañ ko joxe mu cher benn entreprise bu gañewul man nga def recours. boo defee recours fi mën nga recours BAD. Mhm. BID BAD boo defee recours BID mais ñoom bu fekkee da ngaa wax dëgg. ah dañuy arrêté marché bi. Hmm. donc pour donc sérieusement sérieusement des fois je me dis que c' est de l' amalgame. ok c' est de l' intoxication c' est des déformations. Hmm. yooyu yëpp pour amate. waaw xam nga boo amatul argument. boo amatul politique la quoi. waaw c' est de la politique. pure pure et dure mais vraiment vous les journalistes il faut Apix est là c'est lui qui a.

président dafa wax damay def un TR TR mooy train express régional buy relier ay régions mais vraiment di dañu nekk ci door bi rek door bi mooy dakaar Thiès dakaar Mbour bu demee Diamniadio Diamniadio dafay apparaître comme un cœur nga xam ne day baat di irriguer ses artères entre Dakar la grande capitale vers les autres régions bu ñu demee bët bu ñu demee ba Diamniadio juñ lay doon benn bi dem ay AIBD beneen bi continuer Thiès après nag yeneen yi xam nga un projet boo koy def il faut qu'on am viabilité économique ah bu ne selon bu fekkee le trajet Dakar euh, Thiès Saint-Louis am na viabilité économique dañuy dem parce que c'est un train express régional boo xam dafa war a maye yëpp fépp fépp fu ñu ko soxla nga xam ni am na une demande cest am na ko soxla pour dugg ci bu def loolu dañ ko fay teg c'est ça donc on est simplement maillage la wax mayage mooy nga lëkkale dëkk yu mag yëpp donc mais un projet existe ah en fonction quand de des économique économiques de l'analyse okay. de faisabilité économique bu ñu demee ba bu ñu demee ba Thiès bu ñu ba Thiès on va regarder quelle est la demande de transport voyageurs au niveau de Saint-Louis bu fekkee jar na ko ñu def boobu mais côté mais mais côté mais mais Dakar mais côté Tamba bi y a pas de problème parce que boobu déjà en co en coopération mm-hmm. avec euh, les les le gouvernement canadien am nañu am nañu des opportunités dem ba Tamba en standard donc bu boobaa fi mu ne nii léegi TER bi bu demee ba Thiès mën na dem Tamba sans problème parce que rail bi day existé déjà dans le cadre de Dakar Tamba. ok voilà parce que mais ci seen projet la bokk en fait parce que Dakar Tamba parce que soo xoolee. ñu ñëw ci projet la bokk ci problème accident yi. donc est ce que c' est pas une solution aussi comme par exemple camion malien au lieu ñu ñëw ba Dakar di ko jaaree ay ak ay ay euh, Kaolack ak yooyu nga xam ne dañ taxaw Tamba. bu ñu defee seen seen marchandise yi à tra bi mun ko andi Dakar wala yooyu. xam nga yenn saa yi même vieux journaliste je dis il faut ngeen dem PSE. bu nga ko defee ngeen am l' ensemble des ah, parce que loolu euh, président Macky annoncé woon na ko ci bi muy inauguré terre mi ngi ci PSE mi ngi ci e bi. l' ensemble des projets mooy maillage ferroviaire fu fu raay mën a dem rek mu dem fa. foo xam ni marchandise bu diis dañ fa war a transporter mooy comme les mines ñu dem fa. désenclaver Sénégal oriental a Casamance ñu dem fa Mayay Faye loolu la président wax dans le PSE mais yëpp dañ koy def ndànk-ndànk parce que quand même a quatre cent camions yi nga xam ni ñooy dugg Sénégal par jour pour affaire fret bi c'est-à-dire xam nga le Mali ils n'ont pas accès à la maire il faut bu ñu amee marchandise boo xam dafa foo a jógee Sénégal il faut mu dem il faut mu dem Mali quatre cent camions ñoo koy def par jour quatre cent camions cinquante cinq camions mooy benn benn benn benn train c'est cinquante cinq camions cinquante cinq camions léegi boo amee dix trains yóbbu na quatre cent quatre cent camions yooyu quatre cent camions yooyu on peut les remplacer par dix trains maintenant comme projet projet bi bi un projet binational mooy Dakar Bamako bi il faut ñaari dëkk ñoo ko séq mhm. il faut ñu d'accord ñaari dëkk yi pour mën a def affaire bi maintenant comme vous savez tout le monde sait qu'il y a des perturbations mhm. au Mali et tout ça mhm. maintenant ñun pour ne pas être en retard si ce projet ñoom ñu ngi ñu ngi aussi def ñoom it ñu ngi def kaay Bamako. Mhm. ñu ngi koy jéem a def di ko jéem a réhabiliter et tout ça. Mhm. ñun léegi ñun ni dañuy réhabiliter ba Tamba. Mhm. def fa au moins un port sec pour que. au moins les conteneurs yi nekk fii ñu yóbbu ko. léegi ñoom ñuy des ñoo léegi bu ñu defee un port sec léegi boo bàyyee foofu conteneurs yi. oto yi ñëw jël ko foofu dem. bu ko defee dootuñu dugg ba biir Sénégal. ba muy am problème yëpp mais nous sommes deux pays frères. loolu yëpp dañ koy waxtaane parce que boo bëggee bu fekkee da nga bëgg un projet dox aussi. da ngay waxtaane parce que le Mali c'est les ñu ñu ñooy opérer mais le Mali c'est les le Mali qui paye c'est-à-dire c'est le Mali boo amee conteneur tant yobu yóbbuwoo ko ba Mali teg ko fa doo am kenn doo ko fa fay mm-hmm. c'est le Mali qui paye donc yooyu yëpp projet yooyu yëpp dañ ci waxtaan ak le Mali tu as vu que le ministre malien des transports bi ngi fi euh, am nañ ci yaakaar parce que actuellement Euh, c'est un projet lourd aussi Dakar Dakar Tamba. Mm-hmm. c'est presque mille neuf cent milliards aussi. donc euh, boo xam ni coopération canadienne ni ngi ciy liggéey bon ñu espérer nañu rapidement que accords yëpp ñu signé ko. pour ñu mën a commencer projet boobu xam ne sinon projet non ñun non man topp projet boobu keneen lañ ko dénk. Mm-hmm. ministère dañ ko tënk ministère des infrastructures okay. des transports terrestres du désenclavement mm -hmm. ak euh, la les de fer du Sénégal nga xam ne beneen directeur moo fa nekk ah mais vraiment Espagne bi ma bi ma fa nekkee ministre délégué on avait un objectif nga xam ni que avant fin d' année bi deux mille vingt et un dinañu def au moins Euh, la continuité bi nga xam ne day dem ba Tamba au moins ñu régler ko réhabilité ko mhm. en attendant ñu teg raay bu bees tàq boo xam ni moo koy tëkk man espéré naa daal ci deux mille vingt deux bi mhm. vraiment projet boobu ñu commencé ko ok donc euh, ñu dugg ci beneen chapitre concernant un les inondations mhm. donc euh, bon d'une manière générale actuellement naka nga ko jàngatee inondations yi avec les milliards yi nga xam ne annoncé woon nañ ko depuis daaw mais soo xoolee presque les mêmes problèmes ñooy persister actuellement surtout soo xoolee nga jël exemple Kër Massar donc euh, avec le plan Orsec ak yooyu milliards yi ñu annoncé donc euh, ban analyse analyse nga si mën a indi. analyse bi ñu ci am ma mën a indi mooy que dañuy nekk ci liggéey xam nga ku nekk ci liggéey nag ci liggéey bi pareegul parce que xam nga dañu amoon plan décennal 2012 2022 déwén lay jeex ah bala ñoo mën a évoluer dëgg bala euh, les impacts du plan ak lan la plan bi indi il faut mu jeex loolu tax mais vraiment man ni ñuy ni ñuy gérer inondation bi ni ñu koy ni ñu koy ni ñu koy defi nii vraiment président bi mu ñëwee dafa wax ni que gestion bi ñu koy gérer di chaque fois ñu wut ay kii di di pomper ak yooyu loolu arrangé wu ko dañuy def un plan mhm. te vraiment fi nga xam ne def nañ fa projet ba mu pare yëpp taawatul bu yàgg bu bu commencé bu commencé taw bu commencé taw Kaffrine ñu doon jukku yuuxu ah ak ak Sédhiou ak yooyu yëpp tu as ak banlieue bi banlieue bi une banlieue proche Pikine yooyu yëpp dafa amoon inondation mais fu nga xam ne projet bi jaar na fa boo demee Dalifort projet bi jaar na fa maintenant c'est sec ah maintenant foo xam ne liggéey bi pareegul mënuñu ci wax mais vraiment li ñu def xam nga inondation boo koy def da nga def ay bassin versant mm-hmm. da nga diviser dëkk fi mu nekk en bassin versant bassin versant mooy que ndox bi bu tawee bu bu tawee c'est-à-dire ci ligne bi gën a kawe. Mm. ay cercle lay doon. day wàcc ci bassin bi non non bassin bi mooy fi muy wàcc c'est-à-dire fi muy jógee. Mm-hmm. fi muy jógee mooy looy l'ensemble des eaux qui sont traînées par le bassin. Mm-hmm. c'est-à-dire fi muy jógee. crête bi muy jógee fi gën a kawe lay jógee. Mm-hmm. ñëw xam nga écoulement des eaux. c'est des on écoulement dafa am direction sens. Des, zone de haute pression vers des zones de basse pression. loolu moo lay moo lay jox différence de pression. ah mooy tax eau di wu. tu ah, moo tax yenn saa yi ñuy wut pompe. boo di pousse si tu mets une pression pour que ndox mi génne dem dem yoonam. mais on a remarqué donc problème mooy day jógee fële day jógee fële ñëw fii. c' est c' normal parce que Dakar dëkk ndox la la route des puits xam nga route des puits bii bii bii nii bii nii mooy mooy route bii mooy euh, Bourguiba. Mhm. ah boo jógee Bourguiba boo demee kii dem Bourguiba c'était rue du rue du Puy mhm. waxi naan da nga naan waxi naan ay teer ay teer ñoo fa nekkoon mhm. mais yooyu yëpp boo demee zone de captage foofu la ñoo capté ndox mi et tout ça mais yooyu yëpp ah vraiment des des des des décision décisions d'urbanisation ah yoo xam ni que euh, ñu ko woon def ay def nañ ko c'est des régimes passés mais y a la continuité d'état il faut que ñu assumer ko ñu jéem a trouver ay solution moo tax actuellement ñu def des ñu def des projets durables mais xamal nañu ma da ngeen waroon wax mhm. da ngeen waroon dem ci les zones déjà assainies yi nga projet ba jeex na ngeen xool ba xam problème bi ça persiste wala ça ne persiste pas les zones yi nga xam ni assainiroon nañ ko defoon nañ fa des projets structurants vraiment le problème a été réglé mhm. maintenant zone yi nga xam ni que da ngay dem parce que boo réglé benn problème boo réglé benn problème l'eau ça se déplace mhm. day dem boo réglé bii problème ah, par de remblais des déblais des des trucs après day avancé feneen mhm. léegi nga dem réglé feneen ndànk-ndànk man bala maa nekk di évaluer plan de bi il faut mu pare deux mille vingt deux ñu xool ba xam réglé nañu l' ensemble des problèmes mais temps yi yëpp aku yu ñu def simplement c' est pour régler quand même problème mu mitit bi dafa métti ñu ngi leen di masa bu baax mititu inon inon eh, inondation bi mitit bi muy def ci askan bi pour régler ko en faisant des pompage mais ça c'est des solutions provisoires c'est pas des solutions définitives ces solutions définitives mooy ndox bu taw ñu drainer ko drainer ko ba nga xam ni day dem fenn foo xam ni même bassin même bassin les bassins la mm -hmm. c'est une, une solution transitoire il faut relier les bassins par un système de pompage bu leen yóbbu ci géej parce que géej parce, parce, géej géej moo nekk moo nekk les zones de plus basse pression te wax naa les écoulement écoulement day jóg ci zone de haute pression vers les zones de basse pression comme que géej bi dafa am léegi fenn foo xam ne day taa dafa nekk en dessous du niveau de la mer il faut des pomp des tuyaux et des pompes ñu relier bassin yëpp ñu wut mu dem ci géej parce que normalement Dakar loolu war na fi yomb xam ndax war na fi yomb Dakar géej gi da ko wër te boo demee ba côté Rufisque y a un resserrement y a donc war nañ ko mën a diviser en deux une partie mooy partie bi dem ay nekk Cambérène kii euh, Kër Massar dem géej bi nekk côté bële beneen bi dem géej bi nekk Bargny ñu diviser ko en deux avec de bassins relier les bassins ko defee bassin bu fees rek bu nekkee ci benn crête rek ah mu am euh, un truc de refoulement mu daal dem ci yeneen kii ñu relier leen. c'est c'est des problèmes yi nga xam ne techniquement ça peut se régler mm-hmm. mais assainissement dafa laaj financement bu bari. mais nit ñi duñ xam xam nit ñi duñu luñ lu ñu xool bâtiment bu taxaw kii ko mais l'assainissement da ngay gas ay remblai ay déblai ay truc loo xam da nga koy suul moo tax mu cher man daal bala ma ci wax mooy affaire bi pare deux mille vingt deux mm. pare ñu xool l'ensemble des travaux qui ont été réalisés mm-hmm. et quel est l'impact quelle la réalisation mais maintenant léegi nii quand même mënuñoo bàyyi nit ñi ci ndox mi il faut ñu trouver ay solution provisoire solution provisoire bi ñu am mooy pompe xam nga l'État actuellement dans le cadre du plan Orsec ils ont mobilisé un ensemble important de pompes hydrocureurs ay cent à peu près cent pompes cent cinquante hydrocureurs bi nga xam ne mooy pompe ndox yi dans les zones basses di ko yóbbu di ko yóbbuwaat fenn foo xam ni que euh, ni ñi so soxla lañ ko pour dem quoi. donc justement yaa ngi wax waxu. assainissement bi mënoon nañu permettre mënoon nañu permettre sax. Uh-huh. vraiment le surplus d'eau là surplus d'eau uh-huh. bi nga xam ne dañ koy am. avec les bassins ñu exploité ko ñu exploité ko à des fins ah def vraiment des des des des des des foo xam ne dañ stocké. Mhm. foo xam ne du gaañ kenn après bu hivernage bi passé ñu ñu soxla ko. Mhm. vraiment daal di daal daal di. ci mbay mi wala ci mbay fay mbay mi fay ko ci fay ko ci ndox dañ koy ndoxu taw même bu kii chargé dañ koy traité rek. Mhm. on fait un traitement ku mën a traité eau de mer ba koy naan. Hmm? désalinisation de l'eau de mer ba koy naan. pour traiter loolu c' est facile c' beaucoup plus facile et c' est moins ok donc ñu dugg si beneen euh, point parce que waxtu mu ñu xaw a xooj tuuti tout à l'heure koy waxu mm-hmm. donc 2022 quand on parle de 2022 ñu ngi xalaat élection locale. est ce que vous mm-hmm. serez candidat à la mairie de Tivaouane. bëgg naa ko mais xam nga candidat à la candidature mais xam nga ñun benn bokk yaakaar dañu ne que président léegi dafa wax ne ñu déglu ko dootul yàkkati parce que dans deux semaines au plus tard war nañu parce que il faut déposer les listes trois mois avant les élections mhm. dinañu déposer les listes donc yàggatul président dina jël décision pour chaque euh, localité ki nga xam ne mooy jiite district bi parce que président li mu bëgg mooy que benn Bokk Yaakaar ni ñu ànde woon depuis 2012 ñu continuer ànd noonu donc vraiment c'est pas parce que kii dafa nekk APR ki nekk mais ci Benno Bokk Yaakaar bi on va avoir le meilleur candidat pour teg ko ñun ñëpp ñu jàppale ko mu dem man am na man man am naa man am naa chance uh-huh. xam tax ma am chance ñiy wax ñëpp man rek maa ci sa a diriger élection yi nekk te liste département te liste commune gagné man maa ko mos a def man maa nekk candidat 2014 maa nekkoon maa nekkoon te liste majoritaire ah bu bu bu bu bu bu commune majoritaire bu bu bu bu bu département de Tivaouane gagné ñaar yëpp bu fekkoon la loi bi ñu teg temps yi nga xam ni ku raw yaay nekk maire kon maay nekk maire maay nekk président. conseil dama ci kon dama ciy tànn lu ma neex uh-huh. mais nekkuma maire parce que quand même euh, dafa am dafa am réalité uh-huh. la réalité religieuse bon xalif bi moom moo moom woo ni ma euh, dama buggoon nga bàyyi maire bi ma jox ko keneen ma jox ko actuel maire bi ay man xalif bi mënu ma ko mënu ko bañal dara parce que suñu famille dañu yàgg uh-huh. wax naa la famille Alaaji Alaaji euh, Malick sama famille la ñuy fekkoon Tivaouane sama famille ñoo ne recevoir à Tivaouane donc euh, ñu nekk ñu jige trop sëriñ bi nekk ma kilifa bu ma ko bu ma waxee dara dama koy def mhm. mu wax ma ko ma ne ko ah kon de man de lii ma nekk nii sax ministre moo ma ni woon léegi bàyyil man ma ma ma bàyyi parce que sérieusement euh, loolu dama ko doon dama ko doon def rek pour pour butal njëriñ Tivaouane parce que xam naa ni mën naa ko mhm. mais comme noonu ko xalaatee baax na actuellement on a remarqué actuel maire bi fa nekk ak Diagne si ak euh, yow déggoowu leen donc est ce que non déggu non fragiliser au fait. Euh, seen non non déggoo président nee na benn bokk yaakaar benn liste dañuy am. Mhm. kenn la ñuy am quel que soit président ku mu mhm. ñun ñëpp dañuy ànd. déggoo bi nag déggoo bi nag dañ koy dañ koy dañ koy nit ñi dañ koy wax nii rek mais amuñu benn problème jaañ si sama rak mhm. sama rak xam nga sama rak. rak la sama sama papa am na soxna. foofu seen kër moo takkal ko papaam. donc xam nga ni kon mënuñoo mënuñoo réeroo. réeroo wuñu politique bi. dafa xaw a politique bu Sénégal. Mhm. dafa xaw a jaxasoo influence. mais bi mu jógee sama bureau yàggul. Mhm. vraiment ñu toog fii waxtaan quel que soit alpha on va se retrouver pour que Benno Bokk Yaakaar mooy la majorité présidentielle mu gagné au niveau de Tivaouane. mais est-ce que am ngeen yaakaar Benno Bokk Yaakaar cette année gagné avec euh, la grande coalition qui s'annonce entre Sonko Karim Wade euh, même PUR actuellement ñu ngi annoncé seen candidature mairie ba mairie Tivaouane ak euh, Pastef ak Khalifa Sall. donc grande coalition boobu est-ce que du leen poser problème au niveau de Tivaouane. non du ñu poser problème au niveau de Tivaouane parce que Tivaouane Tivaouane xam nga Tivaouane bu ñu fekkoon si on était un peu organisé même du am du am compétition dañu koy def comme Touba rek on a une liste une liste boo xam ne tous les tous les hommes yi bëgg un changement radical au niveau de Tivaouane ñu ànd def un programme ku mu waxtaane ko teg ko jiital kenn surveiller ko mu daal di def programme boobu. parce que Tivaouane parce, parce, parce que Tivaouane a besoin de ça. Mhm. Tivaouane a a besoin de ça parce que compétition bi en fin de compte toujours depuis ah vraiment depuis ma depuis au moins les cinq derniers maires ah. gars yi dañuy sonn rek toujours compétition def de politique mais en fin de compte mhm. c'est le choix du marabout qui passe. donc vraiment donc moo tax ma ne yenn sa yi est-ce que ce serait plus facile que ñun ñëpp ñu ànd. ah def benn euh, xam léegi kii moo xam comme comme xawoon ci sport bi lan la woon kii euh, compromis la ñu woon ci sport bi. Euh, <laughs> comme loolu <laughs> ñu def noonu <laughs> ah bu demee noonu bu ko defee mu am une équipe parce que quand comme comme en fin de compte en fin de compte en fin de compte li ma lay wax nii mm-hmm. l'ensemble des maires qui se sont succédés depuis depuis cinq six sept maires mm-hmm. quand même le choix du marabout a été déterminant da ngeen di def da ngeen di def compétition tuk tuk tuk ba gagné mais après da ngeen di dem ci marabu bi mu waxtaan ak nguur gi ni kii la tànn après kooku mooy jàll. mais cette fois-ci ce sera mais ce sera différent avec euh, le chose. xam ne dafa am problème boobu. Euh, non non ce ce sera la chose parce que quand même nañu wax nañu xam ne xam ne dafa réalité bi am Touba mu am Tivaouane et puis deuxième deuxième et deuxièmement mm-hmm. vraiment ñooñu ngay wax coalition boobu ngay wax. Mm-hmm. président Macky Sall seul waxuma la coalition waxuma la waxuma la coalition benn bokk yaakaar président Macky APR rek rek rek rek mënoon na leen gagné waxuma laa nag waaw waxuma laa nag APR ànd ak l'ensemble de la coalition benn bokk yaakaar ñu mën a dem vraiment amul amul amul on n'a pas de doute au niveau Tivaouane bañ koy bañ koy bañ koy gagné en 2014 mhm. di gagné dép xanaa xamoon département de Tivaouane appaire rek moo gagné amul amul amul euh, département waxuma la coalition de APR APR laa wax. Mhm. département Tivaouane moo gagné seul. àndul mhm. kenn. xam nga ku mu gagné woon. coalition PS PDS Rewmi ak coalition Aar Sénégal. Mhm. mais bi am na Sonko bi ba. mais bi euh, PDS mi fi woon non. te dañ ko dañ woon. pur mi fi woon non. ah pur mi pur ma nga fa woon non il était Ah, ah, Macky euh, euh, le PDS était candidat à travers temps et gestion euh, du ma lan du concret là. Mhm. ils étaient forts mais tout à fait dañu la gagné. Mhm. donc fañ leen jaaree woon xam nga la réalité élection ak la réalité des réseaux sociaux du site extrêmement différent. Mhm. vraiment c'est pourquoi les gens vont avoir beaucoup de surprises. l'ensemble des gens que là que tu vois ouais nekk ci réseaux sociaux yi di wax on a eu on a eu ces exemples là mm-hmm. l'ensemble des gens qui étaient là populaires dans les réseaux sociaux et tout ça bi demee élection ay 1 pour cent ay 2 pour cent la ñu am donc yaa ngi présidentielle l'ensemble ces candidats là mm-hmm. ay 2 pour cent 1 pour cent la ñu am ils n'ont même pas pu avoir de parrainage c'est ça le problème gis nga vraiment il faut parce que ñi nekk ci réseaux sociaux yi di wax ak wax yu bëri Dakar la ñu am et deuxièmement c'est bon le potentiel électoral yenn saa du ñu am sax carte pour pour voter. kon yow pour yow bi euh, union opposition bi tiitalul waa benn. non nous avons nous dans tous les dans tous les il y a au moins combien ya y a peu près cinq cent cinq cent cinq cent vingt cinq collectivités locales. Mm-hmm. yëpp wax naa la benn bokk yaakaar mooy gagné. Donc une dernière question. C'est-à-dire la majorité présidentielle. Euh... Donc Tivaouane ne va pas échapper à ça. Mhm. C'est la majorité présidentielle qui va gagner. Mhm. ñaan naa euh, sama euh, président euh, xelam nekk ci man mu désigné ma mais quel que soit man ku mu désigné rek. parce que parce que parce que man discipline de parti dama ko gëm. surtout discipline Benno Bokk Yaakaar. Mhm. parce que mënoo gagné ñaar yëpp ñu ñaar yëpp ñu teggi la. ni lay ñaar yëpp joxal keneen nga joxe ko sans broncher. ça suppose que man discipline de parti wane naa ni que mhm. man je suis discipliné en matière de politique et que je n'ai pas problème loolu nag xam loolu moo la koy may mhm. boo deful politique au moyen de promotion sociale bu fekkee mënal nga sa bopp te jaaroo ci politique ah vraiment loolu moo lay may bu ñu defee loolu nga am discipline parti mais bu fekkee Ah, yow politique rek nga yaakaar. pour tedd pour se pour se pour avoir un avenir pour avoir un devenir. bu ñu la bu ñu la ko xañee day métti ci yow quoi. mais man métti wu ci man parce que depuis j'ai commencé à travailler très tôt j'ai trente trente cinq trente deux ans d'expérience depuis que je suis ingénieur. polytechnicien en quatre-vingt-six donc vraiment je n'ai pas de problème c'est la première fois. mu dugg ci administration mooy deux mille à l'avènement du président Macky Sall. Okay. j'étais dans un bureau d'études qui marchait. Mm -hmm. et qui qui dans toute l'Afrique. avant ñuy ñëw aussi am na quelques jeunes de Tivaouane yi ñu jot a waxtaanal mhm. peut-être. Mm -hmm. donc certains vous accusent de ne pas être euh, social yaa yaa si sax la ñuy wax donc. parce que social boobu ñuy wax au moins mooy c'est-à-dire jël ay jeunes au moins tuggal leen ci yenn instances pour ñu mën a liggéey donc côté boobu di accuser contrairement à Siré Dia Siré Ba Siré Dia daal ñu ngi leen di. ñaax ñi ñi wax nag ñi ñi wax ñi ñuy wax. Mm-hmm. bu dee man la ñu wax wala Diop si la wax on est les on est on est les deux personnes. Diagne si si ah. on on on on man man bokk ak Diagne si vraiment je vous dis ak ñi wax yëpp on a créé énormément d'emplois man mii ngay man ma ngay gis nii bi ma amee opportunité nekk ministre délégué au réseau ferroviaire créer na une centaine d'emplois au niveau de Tivaouane tous les gens ngay gis ñu def régulation ferroviaire c'est-à-dire passage à niveau yi passage à niveau yi ñi fa nekk. nga xam ne dañuy yëkkati dañuy bu oto di ñëw bu raay bi autoraay euh, di ñëw ñu yëkkati drapeau pour avertir nit ñi ak siffler pour avertir nit ñi wax leen bu leen jàll et tout parce que dafa amoon surtout côté Tivaouane dafa amoon toujours ay tamponnement ay accident ferroviaire ah, parce que ak ICS ak GCO xam nga Tivaouane buñ joxee buñ jógee kii bu jógee Diogo kii jógee Mexe rek foofu la ñuy jaar Tivaouane doo ko ñëw ci et tout ça donc dans toute cette zone la man maa réglé en négociation avec GCO ICS ñu def euh, ñu former ay nit en régulation ferroviaire di leen jox ay ay ay drapeau former leen sur les trucs train bi bu corné tel xam ñu xam affaire yi quoi régulation ferroviaire ñooñu ñu ñu former leen assermenté comme mënuñu leen jël directement ñu organiser na en forme de GIE ñuy def la régulation ferroviaire de Dakar ah de de de de GCO ak kii de Mékhé à Dakar ñooñu ñëpp ça une centaine d' ñu fa am centaine d' emplois directs maintenant plus maintenant l' organisation parce que GIE e boobu dafa am am na ñuy liggéey am na ñu koy gérer y' au moins une quatorzaine de personnes yoo am ne ñooy gérer affaire yi def def kii et tout ça ak les gens qui une centaine d' emplois bi ma jógee foofu def naa quand même un financement ah bu xam ni mooy ma joxe caution 10 millions au niveau de la au niveau de euh, PAMECAS ñu def un financement l'ensemble des femme l'ensemble des des jeunes qui voulaient un financement am activité ñu ñu ñu ñu finan ñu ñu financer leen fii ma nekk fii au niveau de de Sen'Ter parce que quand même il faut que aussi nga mettre des gens dans les même trucs bi ñu defee un appel de recrutement tous les gens de Tivaouane nga xam ne bëggoon nañu bëggoon nañu ñëw te am une capacité am truc jëm nañ leen fi jëgal dugal mais de Sen'Ter c'est pour tout le Sénégal mënoo mënoo ko jël jëmale ko waa waa waa waa mais vraiment je vous dis naa man beaucoup d'emplois le maire bi ñuy wax aussi ak dans le cadre de ses fonctions parce que moom mooy gérer quand la propriété de la ville temps yi gis ngeen à peu près quatre-vingt-dix emplois yi nga xam ne ñu ngi liggéey ci cetam ci cet mi créé na ko et tout ça donc vraiment ñëpp a xam nga lépp du doy mais ñëpp ngi ñëpp ñëpp ñëpp ñëpp a ngi liggéey liggéey doon na c'est ça c'est au bénéfice au bénéfice de Tivaouane mm. parce que vraiment kuy jël bu dee man muy maire muy Diop si muy Ablaye Ndiaye Ngalgou et tout ça li ñuy def yëpp c'est au bénéfice de Tivaouane mm. donc ñoom ñëpp il faut que même si on est des des des des, des candidats potentiels concurrents mais il faut ku nekk li muy def nga nga nga nga nga ko ci parce que loolu yëpp c'est au bénéfice de la la population de Tivaouane mm. te ñoom ñëpp ñi ngi wékku ci président Macky ñoom ñëpp ñoo bokk ñoo bokk ñoo bokk fii ñu jëm ok jërëjëf monsieur le ministre waxtu bi dem nañu donc euh, xanaa ñu bàyyi la peut nga tàggatoo wala nga joxe benn message li may tàggatoo daal mooy xam naa ne man je suis le meilleur candidat parce que j'ai un programme pour changer Tivaouane def ko une ville verte une ville lumière une ville bi nga xam ne ko vraiment du ñu envier kenn parce que loolu xamuloo parce que c'est l'expérience que j'ai traînée Touba bi ko Ablaye Wade defar defar def def cent cent cent millions man la ah les cent vingt huit kilomètres de route yi ñu tabax Touba man maa ko def forage l'ensemble des forages des seize forages man maa ko surveiller les quatre mille quatre cent robinets man maa ko surveiller donc et ce même programme la ñu bëgg a def Tivaouane mu doon visite religieuse am am on n'a même pas besoin de l'État pour, pour pour mobiliser tout cet argent la ak le tourisme religieux mobiliser vraiment xaalis boobu yëpp pour def ko ci Tivaouane et tout ça il est vrai que gars yi ak emploi quand il faut créer des possibilités Tivaouane mën na doon une ville de consommation parce que ak activité religieuse am yëpp il faut ceinturer Tivaouane par euh, quand même ñuy wax les agropoles pour que ñuy produire li nga xam ne li ñuy li ñuy li ñuy lekk Tivaouane yëpp ñu produire ko tout autour ñu créer des bites aussi nit ñi di ñëw di def ziar Tivaouane di fa def pèlerinage yëpp massa vraiment maa ngi gërëm di nuyu waat yaawoon yëpp di masaw ci mbënd mi nga xam ni moo fa am te waa moo fa am di mbënd mi ni ñi metti na trop ci yenn quartier yi mais vraiment aussi boo nekkee Dakar dem visiter Kër Massar visiter nit ñi ni ñu nekkee ay Kër Massar mhm. ah vraiment di nga xam ni que Tivaouane xaw na métti mhm. mais ñii ñëw dakaar fi moo leen gën a métti métti mhm. de parce que Tivaouane aussi am na ay taa taa taa taa taa mais am na zone yu bëri yoo xam ni taawul man ngaa génn sax dem dem dem feneen mm-hmm. mais zone Kër Massar beeg Dakar ni mel foofu xam nga même boo génnee sa kër doo am foo dem maa ngi maa ngi masawu daal waa Tivaouane yëpp di masawu yi nekk ci ndënd bi mbënd bi yëpp di leen wax ni de solutions structurelles ñu ngi koy envisager di ko indi loolu yëpp ñu ñaan mu jaar ci jàmm ba pare loolu yëpp mu réussir ndax jàmm nit ñi parce que bu Sénégal nekkee ci jàmm boo nekkee ci jàmm nekk ci jàmm mooy nga nga toog féex amoo benn amoo benn problème amoo benn problème boo nekkee ci inondation mënoo mënoo nekk ci jàmm moo tax vraiment ñu ñaan bu ñu ñaan nag taw bi jeex parce que taw bi moom na continuer parce que taw bi c'est extrêmement important pour les agriculteurs ces agriculteurs yi xam nga ñoom ils représentent une partie importante de la population mais ñi nga xam ne soxlawuñu taw bi comme comme Dakar dañuy def ay système bi nga xam ne bu tawee dinañ ko mën a récupérer yóbbu ko fu sori et des solutions définitives président bi mu ñëwee moo tax le plan décennal là c' était pour avoir une solution définitive ba ñu cee am nag une évaluation objective mooy xaar deux mille vingt deux bu ko defee fin deux mille vingt dinañ ci am une évaluation objective di nuyu ñëpp di ñaanal ñëpp di massawu ñëpp. ñu ngi lay jaajëfal monsieur le ministre jërëjëf